ay Daouda Diallo mi nga xam ne euh, waaw ma jël kii après ma dal gan gi moom itam mu nuyoo gaa am na ko dugg oui salaamaaleykum asalaamaaleykum waaleykum ah, salaam waaleykum waaw ah, ñu ngi leen siyaare mm-hmm. dellu siyaar na koy tey waaw ah, ñu ngi tur bi ak fi may woowee man Moustapha laa sëñ Moustapha fan nga ñuy woote Louga laa leen di woote Louga waa doo boo mënee yëkkati kàddu gi rek. dama ne maa ngi rafetlu waxtaan bi. Eh, sama mbokk yi xam naa Aliou bëri xaw nañu fee bëri waa Louga yi. yi waaw ne waaw ah, xam nga ku mel ne ci réew moom. ay bogaan ñooñu ñooñu saa yooyu. Hmm. dan naan dan kon la uh, uh, la topp. Uh-huh. foo ngeen jëm daa soriwul. waaye nii ba leen waree tegi sax dafa yàgg. Uh-huh. wax dëgg yàlla ndax ñoom mën naa ni waaw naa ni pomme terre bu ñëw ñëw dañuy yàq Sénégal rek ñun defar ñu loo xam xale yi cëpp ñoom dañoo yaakaar ne xale yi kenn wax dama yàlla kenn waxaat loolu na ko yam wax di wax di ki bala ngay wax lu la yàlla ramat ñu ko takk deer kadeer euh, mu wax ci takk deer yi xam na ni wax du rëy ndax su takk deer Sénégal yi nga xam ne Sénégal bu dégg dégg ñu Sénégal ni leen di tuumaal loo xam ne ko dégg vraiment. waaw ñu war ko koy motu. allo. waaw dégg-dégg neexul euh, te ñi nga xam ñu ngi seetaan parce que déggin bi bu na naqaree rek day xaw a kii réseau bi moo baaxul ci moom soit ci ñun ci réseau bi donc le temps ñu dalal suñu gan gi Mouhamed euh, Niang maa ngi koy wax léegi moom nag euh, ànd defar suñu réew yaakaar naa mooy euh, mouvement bi nga xam ne moo ko jiitee bokk itam ci ñi taxaw ak euh, ànd ak kii di Abdoulaye Daouda Diallo Mohamed maa ngi lay ziar bu baax a baax. waaw jërëjëf euh, Alioune Seydina Alioune ñu ngi lay ziar bu baax a baax si journaliste mag bi ak Ousseynou. seexu yàlla bi maa ngi koy ziar sama xarit bi wax dëgg yàlla. di ziar képp koo xam ne mi ngi seetaan seen teraanga di gërëm waa mouvement bi nga xam ne ñu ngi tudd mouvement ànd defar suñu réew. ak euh, waa CLAT bi nga xam ni Seydou Sow mu ngi ko jiitee nekkoon conseil spécial ci président Abdoulaye Daouda Diallo. Mm-hmm. di gërëm it ki nga xam ni moom mooy suñu pas-pas di suñu yaakaar tey ak ëllëg ci wàllu politique euh, muy président Macky Sall di moom mooy nga xam ni moom mooy président parti bi di tête de liste di gërëm nga xam ni moom mooy président Abdoulaye a Diallo bi nga xam ni bu ñu jàppee président Macky Sall. kàngam boobu moom moo tax di gërëm waa mouvement bi yëpp ñi nga xam ne ñi ngi yeewoo Parcelles Assainies ñi jiitu ci mouvement bi mooy ñoon moodu Mbaye euh, Assane Diop ak Thion Diaw ak ki nga xam ne moom mooy papa Papi Signan moom mooy secrétaire bi ak ki nga xam ni moom mooy euh, grand Alassane jong bi nga xam ni lu jëm ci wàllu mobilisation moom moo ko yor bépp liggéey boo xam ni euh, mouvement bi mu ngi koy def rek ñu ngi jaar tamit suñu bàjjenu gox yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan dëkkee di seetaan seen teraanga. Mm-hmm. gis lu ñuy def ci wàllu actualité ak ci wàllu people. di xam ne nag moment bi moom ku ne gis na ni li xew donc ñu ngi ziar ñëpp ah. ah di gërëm nag suñu leader bi. di ko di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm muy président Abdoulaye Daouda Diallo. Abdoulaye Daouda Diallo dinaa ñëw ci moom. Mhm. ak euh, ci euh, kan la àndal Amadou Ba dafa mel ni ñu ngi naan Amadou Ba la àndal ak ci mel noonu mais euh, déjà sa jàngat ci li xew nii parce que dañoo convoqué Kader. Euh, garde à vue ko daal nañu koy defeere euh, convoqué ki nga xam moo di Cheikh Yérim sekk ci mbir moo xam ne euh, xamaguñ dëgg-dëgg lu mu doon mm-hmm. ñu xëy dégg ñu ne Bougane Gueye Dany itam gars yi ñu ngi koy wër est-ce que ñu bari ñu ngi naan contexte bi c'est politique mais est-ce que nekkul rek yoon mooy def liggéeyam boo xam ne day jubbanti loo xam ne jubul waaw jërëjëf mais avant ñuy tudd yoon mooy def liggéeyam dama bëgg laaj première question ah. question bi ma laaj laa lay doole Kader lu mu def kere dañu koy tuumaal ci boof benn video bi nga xamante ni ci benn émission moom moo ko doon wax nii dafa am maanaam police maritime bi nga xamante ni ñoom ñooy faral di traqué yenn xale yi nga xamante ni ñu bëgg a génn réew mi ci yoon bi jaaral ko ci yoonu géej gi moom nag ci li mu wax ni dafa yor benn audio boo xamante ni benn jeune moo koy nettali ni léeg-léeg nekk en pleine mer maanaam ci digg géej gi police bu leen fa fekkee léeg-léeg dañu leen di corrompre jox xaalis léeg bu ñu leen joxee xaalis bàyyi xale yi dem Kader nag ma xeloon en direct ba pare nag est-ce que sax léeg-léeg duñu leen posonné donc affirmé bi muy wax mais da wax ay est-ce que est-ce que ba ciy tuumaal sax ni police scientifique dafa war a ñëw. donc nag ba ñu yor ay audio ci loolu la yoon daal di sukkandiku ne ko nag dafay tuumaal li nga xamante ni moom mooy euh, police bi. ci loolu d'accord jëf merci Ousseynou. Euh, que boo gisee ma demande question bi moom dara bala nga koy wax. Mm-hmm. ak loo foo mën a far. Mm-hmm. ak foo mën a bokk. day fekk nga xam. lan mooy problème bi. nga nga baal ma fàttali à peu près li ñu ko li ñu koy tuumaal dañu koy accuser euh, diffusion de fausses nouvelles mm-hmm. euh, jetant la discrédit de l'institution policière maanaam fësal xibaar yu wérul ak jéem a euh, tuutil yi nga xamante ni moom mooy police bi. Ah, d'accord mais loolu man sama gis-gis tamit doo nekk di def politique rek. Mm-hmm. bëgg mbubboo loo xam ni. Mm-hmm. li am bokkul ak li mu def. Mhm. loolu ça n'a rien à voir ak mbiru politique Kader chroniqueur la. Mhm. nekk Sen TV. di yëngu di wax ci xalaatam liy xew ci réew mi ak ci wàllu politique. bon daan na toog ci plateau comme nii ngeen di toogee ci plateau en tant que di ñu invité ñun ñuy wax waaye nag. Mhm. wax dëgg yàlla euh, yoon doon na loo xam ni tey ci wàllum police man à chaque fois dama mës a xeex loolu ci lii. parce que li tax ma demandé la question mooy am na lu ma si jot a xam mais dama doon gën a bëgg mu gën a leer. wala mbiru lu jëm ci wàllu corrompu boo koy wax. il faut nga am ay sources yu leer. te it nag dafa am loo xam ni man ànduma ci li Kader def. man waxuma téye bi de mais li mu def je suis pas d'accord parce que tey su fekkee ni yow dafa am loo xam ne dañ lay dégg ay xale yu lay yónnee ay audio nii rek en tant que Kader. nekk professionnel xam nga benn jour toog naa fii nga toog ma ni la. micro dafa dangereux. Mhm. télévision wala léegi fu ñu toll ci wàllu technologie booy wax. li ngay wax na ko xam man waxuma je parle pas affaire politique ah. du du may waxee mooy lii du cadre politique. Mm-hmm. liñ ko woolu seen normal. nit foo mën a far. liñ liñ ko woolu seen normal ñu woolu ko ci loolu parce que booy wax na leer. Mm-hmm. affaire yi genre surtout dee gi ni mu mel ci wàllu ci ci géej gi plus de ay cinquante personnes xale yi di dee jël yoonu géej gi hmm. yow nga toog ci télévision di wax ak lu mu a mel la ngay wax waroon nga xam lan la Kader même bu ko xamoon sax waru toog ci télé wax ko mënoon hmm. na wax ci beneen facette lu jëm ci wàllu politique wala loo xam ne état waroon na ko def entre ñun ak ñoom ci état war ko def pas ci affaire yoon ndax yoon yoonam nekkul ci affaire politique tey jii su fekkee wala ñuy wax ak ñoom ñoom Sonko ku mel ni Jomaay dañ leen koy wax directement te du doon saaga du nekk xaste mm-hmm. waaye bu fekkee lu jëm ci affaire dee la nga gis tey géej gi fan yi ni mu mel booy yi bari di dee loo ciy wax waroo sukkandiku ci ay ojo wala dafa am xale boo xam ne ñun ñëpp fii ñëppay jot ay information ci affaire géej gi mais pas ay affaire yoon mm-hmm. yoon ñoom li ñu xam mooy ñu gis loo xam ne jëm na ci musiba ñu ñëw taxaw alerter def defar ko wax dëgg yàlla kon ñoom bañ nañ ko ba sax à mm-hmm. chaque fois ñu ngi ci tefes gi di def seeni liggéey ñii ngi mbuur ñii ngi xa yaraax ñii ngi Kaolack fu ne pour xo man gis naa ci ñuy def ci liggéey boobu mucc ay boo xam ni. Mhm. booy yu bëri fan yi ci côté yooyu ñuy dem noonu moom xaw na wàññeeku. kon nit booy wax ak lu mën a xew bul topp rythme micro. wala toog ci télévision di wax loo xam ni tey. Mhm. lii la lay jural. mun nga def sa politique su dee da ngay nga xam ne. Mhm. te pare. am na leen loo xam ni bëgg naa wax gis nga booy politique. demal nga def politique. te bàyyi micro yi. bu fekkee journaliste nga ñu xam ne journaliste nga. mais politique déguisée di di di di ci yeneen façon. Mm-hmm. bokkul ak lii xam nga tey. lu mën a xew. lii mu dekk lii mu wax nii jëmale ko ci ay affaire de corrompu. Mm-hmm. tudd ci ay takk der. Mm-hmm. loolu c'est trop. dafa ëpp. ñun dañu war a respecter suñu takk der yi. tey looy wax di ko jëmale ci ñoom. na doon loo xam ni kàddu yi bu jugee bu ko nit déggee gën leen bàyyi xel pour jox leen cër mais bul def loo xam ne soo ko waxee bu leen nit déggee di leen xeeb te ñoom kaaraange réew mi moo leen fi bàyyi man waxuma affaire par rapport ñoom affaire de politique seen yoon nekku ci mhm. ku na xam ne ne lu jëm ci mbirum affaire gaal yi yoon seen yoon nekkul ci loolu ñoom li ñu gis mooy safaan mi ngi am ñu xool nañ ko saafaraa mhm. musiba bi nga am nañ xool nañ ko réglé am na luy xew fa nañ bu leen fekkee ni am na ku ñuy topp ci alalu luubal loo deful loo xam ni mhm. fii nga nekkoon ci réew mi jël ko mu nekk dëgg askan wi taxaw mouvement ànd suñu defar suñu réew taxaw nit na yoon taxaw ñu fay xaalis su réew mi génn ko mhm. su dee amul nag ñu xam ne amul ñu xam ne amul waaye nag toog ci télévision di wax loo xam ne di tudd affaire corrompu loolu moom vraiment carrière dafa juum mhm. juum na trop ci loolu parce que ay affaire de audio mhm. affaire de xale yooyu ñuy wax doo ci sukkandiku ba toog devant télévision tout le monde adduna bi ñëpp di la déglu nga génn li ni mel si gémmiñ loolu moom beneen bi mooy ma ñëw ci kaawu Yérim Seck bi ngay wax ah. man bu ma waxee ci cadre politique kese. mooy gouvernement bi. bi nga tegee léegi wax sa xalaat xam nga sondage yi dafa wane boppam. wax sa xalaat nga affiché benn numéro. ci bas d'écran bi yow woowoo sénégalais pour ñu woo la de sénégalais yi ñoom ñoo doon seetaan di woote di participer participer ci émission bi. ku ne di wax sa xalaat. kenn ku ci nekk yow boo toogee fi nga toog Ousseynou wala Alioune xam ngeen instant bi sénégalais seen degré fan la toll. Yérim Seck ak lu mën a xew ñëpp gis nañ temps yi sorti yi mu doon def di wax loo xam ni ku xamuloon sax dina tax mu orienté wu pour xam ñi xamul mm-hmm. ñu bëri dañ doon dégg Yérim Seck dëgg la journaliste la mais am na ñoo xam ne xamuñoon sax ba xam journaliste la mm, parce que Sénégal boobu Ndour wax na ko ñi fi jàng bariwul dañ leen di compter